alayki min arrahmani azka tahiyati seydi ahmad atijani salaamun ala maktumi sirrin wa rutbatin alayhi min arrahmani azka tahiyati Cheikh Tidiane Serif فآني به باب النبي محمد ومن كان مفتاحا وختم الولاية كبك سيد أحمد التيجاني فذاك أبو العباس وارث جده به تلات شمس الهدى للسريعة Cheikh Tidiane Serif falillaahi samsun nuuruha wassuawa Seydi Ahmad Tidiane tuxiitu alal afaaqi turran bi dawati fa yaa saada man yati wa yabqi wasilati yanaalu min al mawla bi nuuril hidaayati seydi ahmada tijaani alaa ye nuuru hikmatitil wa hikmatin liman xad ataa seyxa tijaani bi bayaati huwa seyxu wal maktuumu sirrin wa rutbatin salaamun alaa maktuumi sirrin wa rutbati cheikh tidiane sérif salaamun alaa faasin ففيها عيبتي وفيها منى قلبي وأقسى مغاربي أعدي سلاما يملأ الأرض والسماء إلى حضرة التجان بهر المواهب مام أمري غوني ndaak ayaa sayida saadaati seex janaba baay asan samaam ayaa sayida saadaati نجل المساعد ويا هادي الأخلاق نحو محمد كبك مام أمري غون داك أيا سيد السادات نجل المساعد ويا هادي الأخلاق نحو محمد مام أمري داك قدمت سبيل الحق في كل بقعة وربيت أرواحا لنا بتوحدي فلا زالت الأنوار في القبر دائما تفيد بفايدات من اليوم والغد sotal leen ma angañ faal te xelil ma daaju far ma bindal mujahid bi lu am waame dootu far xësal leen ci njàmbaaru kaxa yewi waa këram jawal yàlla ak yonnen ba def sunna ab gawar xayat leen ci xayimab gor sa daan yendu ci xare bu guddee mu tallal der ba jëm peeyi bay zikar mu teeŋee na tasbihaat ci leeraayu jant bital jàngu bi tax ndonga yi jàng fi suwar mam amari ndaag mooy ka kokki toj aañaam daqaar seexu xam na ko ka aw samba saa joog benn buntey ka masar ci nang bi xam nañ ka gàmmaa ji daan ndamoo gédéeg rooso jàmbaar jee ko daan noote ci gawar nenet naat na mbokki jullit yi alaaji ngañ dem sarr porte-parole xalif général bu Thiénaba mi ngi wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di jiital ci nuyoo bi islam bi yépp di siyaare ñépp kaddu yi ñuy yëkkati kaddu yi bàyyi seexu canaba la ndigal li ñuy yëkkatee kaddu gi ndigalu seexu canaba la jataay bii ñu bokk toog jataayu seexu canaba la xam-xam bii ñu bëgg a waxee ak sax xam-xamu seexu canaba la kon bàyyi seexu cana baa ngi nuyu islam bi yépp di yëgal waa Rumde ni leen sëriñ Cerno Ousmane yow ak sa njaboot gi nga ko bokkal yépp xalifa bi mu ngi leen di xamal ni sëriñ Canaba bi muy ñëw bàyyiwul kenn Canaba mboolem dëkk yi nga xam ni dañoo aju ci Cenaba seexu Cenaba moom ko te ay doomi seexu Cenaba ne fa te ay doomi magam ñépp woone leen ñu ànd ak moom mu seedeen leen itam ni bis bi bis bu ko gën a ñore ni bis bii mu toog ñun ñi nekk ca wetam man day xaw ma bis bu ko gën a ñor seen bisub tey bii ndax bi mu càmbaree bis bi ci biir ak ci biti lépp day ak mbokk lépp day kóllëre lépp day ak mbaax lépp day diine te lu gën a rëy lii cib jullit moom xamu bi muy ñëw maam Ahmadou Ndak Seck radiyallahu mi moom Cenaba bi muy wàcc liggéey ñetti doom yu góor la fi bàyyi ñetti doom yooyu ku ca mag yow yaay sëriñ Thiénaba mooy njabootug maam Momar Talla Seck góor gu mag te premier xalifa maam Ahmadou Ndaak Seck radiyallahu anhu toog ca xilaafa ga juróom fukki at ak ñaar moo meññ bàyyi Seexu Thiénaba mii toog ñaareelu doomam di njabootu maam Ibra Penda Seck Serigne Ibrahima Seck bu bàyyi Serigne Taala Xaar ma nga xam ni kër maam Ibra Penda tey mooy seenub kalifa mag ca njaboot ga rakkam yooyu yëpp ñi ngi ci biir jataay bi Serigne Gora Seck way juram di bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Seck borom alquran mi ngeen xam jóge fi barki démb doon juróom-ñaareelu xalifa maam Ahmadou Ndaak Seck Serigne Gora Seck ngi nii ci jataay bi sëriñ Ibrahima Seck mu bàyyi Serigne Talla Xaar mi xalifa maam Ibra Penda Seck rakkam di Serigne Alpha Mamadou mu tudde ko magam Serigne Alpha Mamadou mi ngi nii ci biir jataay bi toog ak ñi ñu ko séqal ñëpp Serigne Jibrilu Seck borom yaaram nga xam ni tey mboolem sëtaati maam Ahmadou Ndaak Seck yi ku dul bàyyi moo mag ñaari doomam sëriñ Madike Seck sëriñ Alassane ñaan chef de village fa tabaarakallaahu yaramam moo xaw a libbat yaramam moo xaw a wéradi yabal doomam sëriñ As Seck mi ngi nii ci biir jataay bi ñu ngi koy nuyu di leen ziyaara ànd ak magam ma Madike fa tabaarakallaahu tafsir mam ma dikke Seck di ñetteelu doomu mam Ahmadou Ndaak Seck Serigne Mouhamad Seck roqaye nekk ca bopp njaboot ga yebal na ay rakkam ak doomam ñi ngi ci biir jotaay bi Gosaas kii toog di seexu ca na ba bàyyi Serigne Gosaas ca dëkkub baayam mam Momar Talla Seck fa la gënee adduna xilaafa gii fa ko fekk waaye daa woote biig ne njaboot ga fa ne damay dem rum de suba doomu magam baay sëriñ saada ma fa nekkoon sëriñ Abdou Wahab Seck mi ngi nii toog bi mu fi njëkk a yónnee sax mu ànd ak sëriñ Alpha mii sëriñ Abdou Wahab mii la joxoon kàddoom sëriñ Abdou Wahab Seck jërëjëf ñoo ngi lay ziyaara ñoo ngi kontaan bu baax boo demee Mbuur magam ba fa nekk nekkoon. di Serigne Ousmane Seck radiyallahu anhu. di xaritam di xaritam. xalifop Serigne Ousmane Seck. njaboot ga ak njaboot ga. ànd nañoo ak bi. ñi ngi fii ci kaw tirbin bi toog. mooy Serigne Momar Talla Seck Ousmane miñ tudde way juróom moom mii mi ngi nii toog. ñoo ngi koy sant. di ko ziyaara. di ko nuyu bu baax. maam Ahmadou Ndaak Seck. fa tabaarakallaahu bi mu demee Samba Sadio bi muy dem bi dem ay mag ñoo ko daroon bi mu ñibbisee ay mag ko dar yor daara ya sampale ko pas pasam mag ñooñu àndoon ak moom ba diina ji rafete nii kër gi gën a taaroo nii njaboot googee kenn desul El Hadj Pape Mor Gueye di xalifa tafsir maam Mor Gueye mi ngi nii toog nga xam ni maamam di turandoo bàyyi sëriñ bii toog tudde na maamam doom mi ngi ci daara ji di jàng ngir gërëme ko ko ak pas-pas bi ña àndoon ñoom ñaar di ko sàmm ba mu jël lépp lu gëm ci gàmmuk ba ibnul muhayyab bi ñuy gàmmoo ci péncum ba moom mii toog la ko xalifa bi dénk moo ko yor fépp fu may dem ci àdduna bala moo wax balaa xalifa bee wax benn baat moo koy ubbil ci yonent bi fàttali ko gàmmu li tax mu jot ci El Hadj Pape Mor Gueye jërëjëf ñoo ngi lay gërëm ci sa teewaay ci sa mat ak yitte ji nga jox lii mu ànd koog rakkam bi sës rëkk ci moom. jàppale ko jàppale ko dimbali ko. mënoon naa yebal waaye Moussa Ndiambé. waaye Serigne Ndiambé ngi nii toog. mu gërëm ko mu gërëm ko. barki démb doom ji mujj am doom ji mu mujj am moom mii. Serigne Ndiambé mee la ko tudde ndax ni njàmbe nekk ci ginnaawam. jàppale ko dimbali ko. Baye Ndiambé jërëjëf. yàlla na ñu la fayal. sëñ bi bi muy ñëw. ay doomu bopp ay doomi boppam. ñëpp ay doomam la ñëpp ay doomam la ñu nag. wante taawam waaye taawam. mi ngi ni toog di Serigne Madioja Seck di Serigne Madioja Serigne Moussa Seck Serigne bay Seck mi ngi nii toog ci wetu baayam Sidi Tayib mi ngi nii toog ci wetu baayam ak mboolem ñi mu àndaloon ñi ngi ci biir jataay bi yal na yàlla fayal ñu leen. sëriñ bi bi muy ñëw. maire commune de Thiénaba maire commune bu Thiénaba. nga xam ni 37 villages la. ñu tuddee ko Baye. ñu tuddeewaat xalifa bii. di Alhaji Taala Diagne di Alhaji Taala Diagne. ko fa sëriñ bi bàyyiwu ko fa. mi ngi ci biir jataay bi mi ngi nii ñoo ànd. ñu mag président Abdou Ñing toogal kër sëriñ Thiénaba ci au conseil. de la république baayam nekkoon imam ci jumaay Cenaba mu toogal fa Cenaba sëriñ bi bàyyiwu ko fa bi muy ñëw da koo indaale mi ngi nii lépp lu ko war ci jataay bi def na ko sëñ Abdou ñu ngi jërëjëf ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay ñaanal yàlla fa tabaarakallaahu cana ba kajoor nga xam ne fa la a ëmbëri ndaag ganee adduna fa la jóge wuy ji maam seexu dem samba sadio am ndam am ndam rombaat kajoor sanc cana ba way juram dekkalaat dëkk ba njabootug baay abdul aziz njabootug sëriñ ma a sek ña fa ne yebal nañ seen doom ak seen rak di sëriñ seexu amadou sek mu fekk si maamam nekkal ko Louga doon ko doxal lii ba lépp baax Serigne Cheikhou Amadou sekk mi ngi nii jërëjëf ñoo ngi lay sant ci teewaay bi Serigne bi bi muy ñëw mu ànd ak ki doon defar yoon wi Serigne Alpha Ba mii ñoo ngi leen di seedeel ni Cerno Alpha Ba Seexu cena ba gërëm na ko ñaari jataay yii ñu toog bu amee laamisoom moom la laamisoom la. ak bëgg kër maam Amary ak bëggam kër maam Ahmadou Ndaak Seck. ak kër maam Limaamul Mahdi ak kër Seydina Limaamul Mahdi. ak njaboot gi waaye ak njaboot gi. lépp nekk lépp bëgg mu nekk benn rek. mu dox ci diggante bi ba sëriñ Ousmane mi ba sëriñ Ousmane mi ànd ak njabootam ànd ak njabootam yëpp yendu sil sëriñ Canaba waaye Baye Assane neewoon na ko sëñ Ousmane lii bor la de lii bor la de te dinaa la ko fay ci sa ëttub maam laa la koy faye kon te bu rafet bii lu rafetee ba baaxee nii yiwe nii sëriñ Alpha ba mii la sëñ Alpha ba jërëjëf sëriñ baa ngi lay nuyu. mi ngi lay sant sëriñ baa ngi lay sant. mi ngi kontaan sëriñ baa ngi kontaan ci yow. njaboot gi nga xam ni. njaboot gi nga xam ni. ñoo ànd ak moom ñoo ànd ak sëriñ bi. nekk ci biir këram nekk ci biir këram. lu muy lépp lu muy liggéey. loo xam ne ci. loo xam ni ci mbirum boppam la jëm. liggéeyloo leen ko liggéeyloo leen ko. Serigne Abba ngi Serigne Abba jaa ngi. Serigne euh, Serigne Serigne Jibi Seck. Serigne Jibi Seck ngi. Serigne Ibra ngi. Ibra ngi. ànd ak ñoom ànd ñu fekkee pour ñu fekkee jotaay bii. bi bu boppam. fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñoom ñëpp. suy añ suy añ. ñu di ko déglu ñu di ko déglu. buy reer. ñu di ko déglu ñu di ko déglu. suy dallu suy dallu. ñu toog di ko déglu. qualité booba yëpp. état boole ko état boole ko moom. bi bawu fa kenn bi muy ñëw ñëpp la indi. sëriñ jërëjëf. bay sëriñ bi muy ñëw. sëriñ bi bi muy ñëw. lépp lu aju ci kër Malimul lépp lu aju ci kër Seydina Limaamul Mahdiyu. jokkoo na ak ñoom jokkoo na ak ñoom. fa tabaarakallaahu sëriñ bi bi muy ñëw lépp lu aju ci kër Seydina Limaamul Mahdi yu al Muntazar maam Biraa Gay ca Ngay mu jokkoog Seydina Isa ma fa ne mu yebal sëriñ Malick Gay di suñu xarit di suñu nijaay di suñu mag fii lañ ko fekk sëñ Malick jërëjëf ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay ñaanal yàlla taxawaay bi ci lëkkale ñaari kër yi rafet na baax na yàlla na gën a baax yàlla na gën a rafet fa tabaarakallaahu waa Wuro Mahdiw sëriñ bi jokkoona ak ñoom ci coordination sëriñ Alpha Ba xam ngeen ni Mouhamad Abdul Karim ma ne maam Abdul Karim Ba. maam Ibrahima Alpha. maam Ibrahima Alpha. maam Khady Alpha. maam Khady Alpha. ñoo bokk ndey ak baay. maam Abdul Karim maam Abdul Karim. meññ maam Muhammad ma fa meññ maam Muhammad Abdul Karim ma fa ne. di xalifa ba di xalifa ba. moom moom. baayam baayam ak baayu sëriñ Alpha ak baayu sëriñ Alpha ba mii di Alpha Mahmoudou. ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay. muy magam muy magam. wala sëriñ ko waaye sëriñ Alpha ba féete ko fépp. seen rakku baay seen rakki baay. di maam Khadiba di maam Khadiba. moom lañ joxoon maam Momar moom lañ joxoon maam Momar Talla Seck. baayu sëriñ bi baayu xalifa bii. mu am ci baay Saada mu am ci sëriñ Saada. baay Saada baay Saada moomu. moom meññ sëriñ Abdou Wahab mii sëriñ Abdou jërëjëf waalo waalo sëriñ Mbay Jaañ ma fa nekkal maam kër maam limal ma fa nekkal kër Seydina Limaamul Mahdiyu sëriñ Alfa jokkoon ak ñoom mi ngi fii ci jataay bi ñoo koy sant ñoo koy gërëm ab nag soo fa dee jóge say doom say doom ànd ak yow ànd ak yow say jarbaat say jarbaat ànd ak yow ànd ak yow say muqaddam say muqaddam ànd ak ànd ak yow say soppe say soppe ànd ak yow sa maire ànd ak yow sa représentant ca état ànd ak yow say taalibe ànd ak yow yoon wa mat na sëkk bàyyiwoo ca dëkk ba nga jóge wante yoon wi nag. waaye nag yoon wi nag. ñi ko couleur ñi ko couleur. mooy waa kër maam mooy waa kër maam maa jooja mbuub ngusaan. Ah, Serigne Thiénaba Serigne Thiénaba. dafa wax ni. daa wax ni. na am xasaan. amoon na am xasaan. mi ko doon wayal. mi mi ko doon wayal. man mii nag. man mii nag. am na am ngusaan am naa am ngusaan. mooy njabootam mooy njabootam gii toog doon sikar. président a suy dem. président sax buy dem. mutaaray jiitu mutaar mooy jiitu. di soufflé ñu xam ne am na kuy bëgg a ñëw waaye yonent bi tam muy njabootu si muy njabootu si Ahmadou Ndaak mooy njabootu maam Ahmadou Ndaak gi fu ñu jëm fu ñu jëm yonent bi ñoom la ñuy tag ña yoral loolu sëriñ bi ñi ngi nii toog di Pape Abdoulaye Mboup ak ay rakam El Hadj Pape Abdoulaye Mboup jërëjëf sëriñ baa ngi lay nuyu mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm bi muy ñëw bi muy ñëw. jarbaatam yi nekk jarbaatam yi nekk Louga. xam ne ay doomi magam nga xam ne ay doomi magam lanu. Pape Dial Serigne Pape Dial. maam maye ko jur maam maye ko jur. maam nooye ko jur maam nooye ko jur. maam bi ñoo bokk benn ñoo bokk wenn way jur. Serigne Alpha jokkoon ak moom. mi ngi fii ci jataay bi. njabootu Rumde gépp. Serigne baa ngi leen di nuyu. jaarale ko ci porte parole. jaarale ko ci porte parole. moo parole kër gi. mu wàcce ko ci mboolem porte kër gi. porte-parole boobu tam porte-parole boobu tam. ñu jël ñaan ñu jël ñaan yi. ak wax ji ak wax ji. ak barke bi ak barke bi. wàcce ko ci xalifa bi Thierno na Serigne Ousmane yàlla na nga fi yàgg. bay sëñ bi nee na. Serigne bi nee na. mi ngi nuyu préfet. wàcce ko ci gouverneur wàcce ko ci gouverneur. ñu wàcce ko ci sous-préfet mi ko fi nekkal. ak adjoint sous-préfet bi ko fi nekkal. seen taxawaay. yal na ko yàlla gën a rafetal. mu le maire monsieur le maire. ak ay adjoint ak ay adjoint ak ay conseiller mi ngi leen di nuyu. mi ngi leen di ziyaara. waa Guet Ardo ñii ay mbokkam ñii mbokkam. di seeni mbokk dëkkin wi rafet dëkkin wi rafet. ña fa ne ne sëriñ baa ngi leen di nuyu. fa tabaarakallaahu waxtaan wi waxtaan wi nag. waxtaan wi nag waxtaan wi nag ñoo ngi fii ci ruum euh, ci dëkku ci dëkku maam Cerno Alfa Ousmane maam Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani daa wax ni xasbuka xasbuka fi dunya say aani say aani nee na bi ñaar doy na ñaar doy na la ci sëkk ñu ne yan ak yan la mu ne soxbatu faqiirin aarifin ànd ak nitu yàlla boo xam ni daa fees dell yàlla maqaamam fees dell yàlla yàlla muur ci moom ak ñàkk ba doo xàmmee sax doo ràññee mi ci dëkk bii fi dëkkub wilaaya la Romde gii ñu to billaahi dëkku wilaaya la fii ñu baax fi dëkk beneen bi beneen bi xidmatu waliyin kaamilin liggéeyal wàlli mat sëkk liggéeyal wàlli yu mat sëkk maam la moom jëmmam moom jëmmam benn borom xam-xam bu mag dafa am benn borom xam-xam bu mag ci aarif billahi la bokk ci aarif billahi yi la bokk mu ne inna lillahi ibadan mu ne inna lillahi ibadan kullu mastaddat kullu mastaddat zulmatul waxti zulmatul waxti xawiyan xawiyan anwaaruhum am na nit yàlla yoo xam ni lu jamono lëndëm lu jamono lëndëm lëndëm seeni leer ñoom seeni leer day gën a dëgër day gën a dëgër day a jolli maam Cerno Alpha Ousmane moomu ci ñooñu la ko yàlla boole maam Cerno Ousmane jël boppam jël boppam def ko ci daayiratul kifaaya ko ci kifaaya kilifa kilifa. day wëre boppam day wëre boppam. ci daayiratul kifaaya. jël pas-pasam jël pas-pasam. jox yàlla jox yàlla. jël kóllëreem jox yàlla. jël xolam jox yàlla. jël jëmmam jox yàlla. jël njabootam jox yàlla. jël ñi ko jox yàlla. jël ñi ko sopp jox yàlla. yàlla wax ci alquran ni. ca suuratu zumar. ayat 36 page 462. laysa allahu bi kaafin abdahu porte yàlla nitu njabootam baax bu bëgg ak njabootam baax ak foo ko mën di fekk ak fekk day jël xolam day xaaj ko ñeenti pàcc moom moom xolam xaaj na ko ñeenti pàcc ku dugg fii. xolu nitu yàlla xolu nitu yàlla. dafa am benn pàcc boo dafa am pàcc boo xam ni. da nga koy xaaj da nga koy xaaj. mu tudd lan mu tudd lan. maxallu maxallu. mahabbatul xalqi mahabbatul xalqi. da ngay bëgg ñëpp da ngay bëgg ñëpp. mënoo jiite ba noppi. di am ñooy xalab di mënta nekk nitu yàlla du bañ kenn ñëpp lay bëgg. bañ nañ ko mag sax ba mag ñi. xamuñu jëmm xamuñu jëmm ñoom. yataarafuuna bi bi ruuxillahi ñoom ruu la xam nit kenn du ko xeeb. nitu yàlla piir day jël xolam day jël xolam. maxallu ru'yatul xaq la ko yàlla boole. loolu nag su amee. waaw loolu nag su amee. yàlla wax ci alquran. wa ja'alna fi qulubi alladina ittaba'uhu rahfatan wa rahmatan. kon jataay bi. jataayu yàlla la fi ñuy tëje Cerno Ousmane mii nag mooy fukkeelu xalifa ak ñett fukkeelu xalifa ak ñett juróom ñaari sekkere moo ci ne ñett yi laa leen di wax bàyyi ñeent yi ndax sëriñ bi nee na waxal ñett bàyyi ñeent yi dina ko wax sëñ Ousmane moom bi ci njëkk faatixatul kitaab juróom ñaari aaya la xul awuusu rabbi naasi juróom benni aaya la bii moo njëkk bee moo mujj six plus sept treize la lay jox sëñ Ousmane fi nga toog baax na de yàlla na nga sëriñ bi nee na nuqtatul fardaaniya la boo demee ca fatiha fanweeri baat la fanweeri baat la ak benn ak benn 31 31 baat 31 baat la. nga dem ci naas nga dem ci naas yi. ñaar fukki baat ñaar fukki baat la. ak benn ak benn. 21 21. plus 31 plus 31. 52 52 la. 52 52. mooy wilaya mooy wilaya. par 4 divisé la lay 13 la lay jox. Ousmane sëñ Ousmane. fi nga ne baax nga toog baax na de. yàlla na nga fi yàgg waay. nit koo gis. nit koo gis. muy kilifa muy kilifa. yonent sax yonent bi sax. bi mu nekkee nekkee ca xaaru xiraa. Aboubacar Aboubacar Saddiq am na num doon def mu teg ko loxo mu teg ko loxo eh, ne ko eh, eh, inna allaha maana bul tiit bul tiit bul jàq fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha kilifa goog gis muy dox am na ñu ko yàlla booleel njaboot gi duñ ko xam Ousmane mii sëñ mii. am na lu mu toogaale am lu mu toogaale. toogale ko ay baayam ak ay rakam. minal jinnati minal jinnati. wannaasi minal jinnati. juróom-ñaari baat la wannaasi juróom-benni baat la boo ko boolee. mooy tëree sëñ Ousmane mii am na leneen lu muy def. lu ngeen xamut. fi mu toog baax na de yàlla na fi yàgg. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi mu amee ñeent fukki at. bi mu amee ñeent fukki at. la ko yàlla yónni. muy 40 ans. mu def makka. mu def makka fukki at ak ñett. muy 53 ans. 53. plus 40. 93. mu dund 63 ans. muy 156. 156. divisé par 13. fukk ak ñaar la lay jox. kon mooy yonent bi kon mooy yonent bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bu ñu amee soxla te ñu wax la ko lu mu xat-xat da ñëw teewe rawatina gan gi nga xam ne moom moo fi teew tey muy gan gi fi teew muy ganu diine lislaam gépp la ku diine lislaam mën a nekk. ñu xam ne moom xalifa bi Baye Assane sekk taxaw na seen taxawaay mu ni taxawaayam tim saa su nekk taxawaayu jokk mbokk la ndi taxawaayam saa su nekk tim yokk diine la mu ni am na luy nit di def ci benn waxtu nga danga jaamu yàlla junne at fekk jotaloo yoolug jëf ji nit ki jëf ci benn waxtu yool bu mu ciy am loole nag moom mooy suñu xalifa bi no bay Assane Seck li mu def nii li mu def lu rëy la lool lim ko defal mooy àddina bi yépp rawtina waa kër Cheikh waa kër Cheikh Omar moom mooy kër Cheikh Tidiane moom mooy kër euh, Thierno Mouhamadul Xaali moom mooy kër Cheikh moom mooy këru Seydil Haaji Malick mooy kër Galle Koset moom mooy kër Galle Mahdi ñépp tey maanaam seeni garaat ak seen taxawaay ak seeni jëf lépp mu ni moom mii tey bay Assane Seck wuutu na ci maanaam ci wilaay yooyu yépp tey li mu def lu rëy la ci yàlla ñu ngi am gàmmar mbari mu ni leen nag faw danaa jaar di ci nganale Baye Assane bi mu ganale Thierno Ousmane ndax Thierno Ousmane woote na mu ni balaa ma koy wax sama coordinateur danaa njëkk woo Thierno Bachir mu ni loole mbir mu mag la mu ni kër gii nag moom Thierno moom ci moom sëñ bi du Thierno Ousmane la fi teewal de mu ni maanaam sa teewaay kiñ fi nuy si tey moom mooy Thierno Bachir mu ni Thierno Bachir mi wuutu tey Thierno maanaam eh, eh, Cheikh Omar kër Cheikh Omar mu nekk xalifa général kër Cheikh Omar mu ni yow nga ñëw fii tey ci kër maanaam kër Thierno Ousmane Mamadou Aya mu ni maanaam ci ndigalu Thierno Jubayr bu mag Ceerno Jubayr jóge na fi maama maanaam bàyyi Ceerno Ousmane mii jóge fi mu nekk góor ko am téeméeri at mu ñëw Louga mu ànd ak ziyaara Louga mu ànd ak ngule maanaam tàngoor wu tàng comme tey muy am ànd doomam mi nga xam ne moom moo gaañu woon Ceerno Mamadou Jubayr Ceerno Mamadou Jubayr mu ni eh, jamono yooyu Ceerno Bachir xamu ko bi mu génnee gis ko mu ni moom fekk xamoon na ko fii mu ni ko nag Ceerno Basiiru Ceerno Jubayru gis naa ko fi de mu ni Ceerno Ceerno Jubayru mi nekk ruum de mu ni ko ah ki ma seen moom la de Ceerno génn maanaam ñu daal di daje ci peron bi ñu nuyante mu ni ko papa munoo ma munoo woore ba fekk si la ruum déedéet am lan moom indi mu ni ñaanal la ak tim dénk la njaboot gi dénk la njaboot gi dénk la dénk naa la Ceerno Ousmane Jubayru Ousmane Jubayru Ceerno Ousmane Mamadou Aya dénk naa leen ko seen maanaam maanaam maanaam sa kilifteef ci ñoom ci kër gi dénk naa la ko mu ni boobu mu ngi am téeméeri at loolee moo tax mu ni mu ni jaamu yàlla maanaam nitu yàlla kii ki fi ñëw tey Baye Assane Seck wuutu na mboolem kilifa diine yi mu wax sànq loolee nag mu ni sansam la moom Baye Assane Seck ci rafetaayam limuy rafetal ci këru diine yi mu ni maanaam nitu yàlla yi tëdd ci biir suuf mu ni bu fekkee ne nitu yàlla yi dinañ def maanaam ab maanaam ay jotaay assemblée ñoom waliyu yàlla yi bu fekkee dañuy def assemblée ñu dund mu ni maanaam ñi nga nitu yàlla yi nga xam ne ñoom dañoo faatu ñoom tim seeni ruux dañuy teew fekkee suñu jotaay yi ñuy def lan moo leen teqale mu ni maanaam nitu yàlla yi dund ñoom dañuy wax ña leen nag duñuy wax dañuy déglu mhm. képp ku leen wuutu nag mu ni ñooñee nekk sa barsàq ñoom ñoo lay roose yow maanaam yow ab jardin toolu jardin nga ñu nekk barsàq ñoom ñoo lay roose ba nga meññ rafet lool ku la gis bëgg la sopp la ci wàllu yàlla loolu moo tax mu ni yow Baye Assane yow wuutu nga ñooñu yow Thierno Ousmane nag li mu wax li nga wax ci moom yow porte parole bi mu ni loolee waxoon nan ko benn nit yàlla waxoon na ko moom te mu waxaat ko ba nit yàlla boobee woo ko mu mu ni ko ceerno Ousmane Mamadou Aya bëgg naa diw du wax turam mu ni xam naa li nga yore yow ceerno Ousmane mu ni aman na kooku ma la bëgg wax am na ko mun na am yor na li nga yor waaye dama bëgg li nga yor dond ko ci mag ñi kooke nga mosal ko ca ñoom ñaar mu woo leen ñoom ñaar mu ni Ceerno Ousmane ak kooku ñu ñëw mu wax leen loolee ci seen kanam mu ni Ceerno Ousmane mu ni ko Ceerno def naa li nga wax loolu mooy signature bi indi góor gi mu ni yoon wii nag képp ku fekke tey maanaam sa tànk teewaay yal na nekk nga am ci yoolug aj gu ñu nangu sa tànk ñibbi yal na nekk yal na ci am yoolug umra bu ñu nangu salli ala muhammad sallallahu alayhi wasallam jërëjëf kaddu gi waaye àndale siise mooy xalifa bi yebal na doomam sëriñ mbay caam siise mu ngi ci jotaay bi bi muy ñëw cenaba ñetti télé nekk yore image u cenaba muy cenaba tv sëriñ jàmbe nga ne alaji taala jaañ cenabo 24 bay taala ñas mu ngi nii toog alaji maar samsu tv ñoom ñëpp lii ñuy def fii àddina bi yëpp ñu ngi koy seetaan jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim eh, kuréel yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne si turam ak santam di am mbégte tey ji nekk fii ci tey ettu Rumde et béréb boo xam ne bi lépp loo fi ñaan rek alhamdulilah rabbil alamin rek yàlla nangu ko di nuyu suñu xalifa bi alhaji Muhammadu euh, Ousmane Muhammadu Aya ñu ngi koy nuyu nuyu ba nga xam ne bi am na fu mu commencé mais amul fu mu yem dellu di nuyu kilifa bi nga xam ne ki moom moo ko seet si tey ji eh, kilifa xalifa général bu cene ba fekk ñu ngi lay nuyu bu baax seet si nga koo xam ne ki nit ku baax nit ku rafet xol nit koo xam ne ki ku yaatu nit koo xam ne ki macha allah gox bi xam nañ ko bu baax a baax département bi xam nañ ko région bi Sénégal yëpp xam nañ ko nit ku baax la nit ku tabe la nit ku am yaa yaatu la kon tax ñëpp ko bëgg kon kooku boo ko seetsee ñun xam naa ne nit ku baax nga nit ku am solo nga nit ko taxaw nga ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi ngay yàgg di génn di taxaw ci kiru xalifa diine yi yëpp nga ànd na kook ñoom ndaxte nii lañu ñu xam ñun de wax dëgg yàlla ñun taalibe yi lii la xam di leen andil nuyoo monsieur le maire Talibou ya baax e, xam ne tey jii fekkonte ne woon ci li mu nekk Dakar tey jii moom mooy taxawal boppam fii ñëw wuy si bi yàlla xam na ne lépp lu ñuy def ñun bu ñu génn Guet Ardo jóge ci xalifa ba moom lañ ciy teg mu ngi nii toog ñëw toog ak moom waxtaan ak moom lépp lu ñuy dog ci mbirum collectivité locale kon nga xam ne kii nit ku nit ku am solo la ci commune bi nit ku taxaw la ci biir commune bi kon nag kii ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gudd fan ak wér kon di ñaanal ñëpp ñu gudd fan ak wér di ñaanal kilifa diine yi nga xam ne ñoom la boot muy dexle muy fépp ci gale Kossette daal ci gàttal yàlla taxawu leen bu baax di leen andil nuyu itam monsieur le sous-préfet mu ngi nii toog ak adjoint nit ku baax nit ku yaatu nit ku tabe macha allah nit ko liggéey amul benn tànkam bu muy def ci biir arrondissement bu kokki lépp fuñ ko woo muy diine muy lépp dana ñëw mu taxaw ci ISPA waxtaan ak ñun taxaw ak ñun liggéey ak ñun ci lépp kon nag kooku ku mot ñaanal la ngeen ñaanal ko yal na am promotion bu gën a gaaw madame la préfet fii la toog ci ziara bi passé guddi fii lañ ko ñaanal alhamdulilah rabbil alamin ñaan yooyu ñu moom moo nekk tey gouverneur de Louga kon nag ñii itam suñ la ñaanalee incha allahu monsieur la su préfet am naa ne incha allahu ñaan yi dana daal incha allah yaag sa join incha allah jërë ngeen jëf ceerno euh, min mbawata juutno tan miɗen calmina fof en miɗen ñagono allah fof en kala garnoɗo haɗa nowti ceerno yalla yo allah nawtuma dow jaam képp koo xam ne kii ñëwoon nga fii wuy si sëñ bi yal na la yàlla delloo si jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jotaa kaddu nuyoo ci yow ci monsieur le maire taalibu ya xam na ni événement bu am ruumde dana ci taxaw dana ci def lépp lu mu war nuyu général kër ñëpp ñoo xam ne kilifa yi fi nekk ñëwoon tey fii si bés bi euh, si turu président la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre Sonko gouverneur région Louga Haute ñoo lay nuyu di la bu baax di am mbégte bi nga xam ne ñëw na fii si Koundé ñëw si arrondissement nuyoo di ziare suñu sama kilifa yi nga xam ne ñoom laa tudd léegi. baax yàlla yàlla yàggal la fi lool suñu kanam ak mbir ñaanal dañu taxaw as si réew mi comme ni ñu ko réew mi. ban continuer di ñu ñaanal ñu taxaw te indi nuyoo ak aussi bu gouverneur région Louga ay dafa am ngànt moo tax ñëwul mook préfet mais fii kër gii ñoom seen kër la lépp loo xam ne xew na fi rek muy événement bu neex wala lu mënti doon rek ñoom dañuy ñëw fii ñëw seet jaare mu lay nuyu di la jaare tey mu ne ma foofu événement boo mën a am sëriñ bi ñëwee rek na bàyyi dem foofu noonu dem ko suñu nuyoo ak suñu siyaare ñaan ñaanal nawet bi nga xam ne si la ñu waajal nii yàlla barkeel ko may tey suñu ñëwee ko ah, dina xam sëñ bi nag Thierno Ousmane bi nga xam ne tey moom nga seet si moom suñu suñu kilifa la boo xam ne suñu mel ñun ñëpp la amal jàmm fii suñu kër la gouverneur muy préfet ñëpp dañ fiy ñëw lépp loo xam ne xew la na ko rek ñun dañu ñëw fii si dëkk doon koo xam ne ñu fonk la parce que ku ñuy waxtaanal lu bëree bari parce que am na dëkk bi benn instant am na fu dëkk bi tolloon ñu toog fii di waxtaan mu ne ma pourtant de ñoo ngi def ay ñaan yaakaar naa am nañ si ñaan yi ne yàlla dinañu defal jàmm ba niñ ko bëggee am ay tettal yoo xam ne daf ñu koy wax ne mën de lii laa gis gis-gis laa am si si réew mi taxawee rek yàlla mën na ko def dañ tey li nga xam ne donc yàlla def na ko ba nga xam ne loolu yëpp génn ni génn nañ ci rafet lu baax taxawaayam bi nga xam ne am na ko fii si arrondissement bi saa yu bés bi ñëwee fii tey tente bi Louga képp kenn du des Louga ñëppay ñëw fi fii day xat dugg fii toog am ci place sax nekkul loo xam ne day yomb département Louga yëpp jaar bi amee fii ñëppay ñëw muy service yi muy maire yi muy ñëpp dinañ ñëw parce que dina xam euh, bés bu mag la loolu daal mooy li nga xam ne moom laa bëggoon indi témoignage vraiment di am mbégte bu baax si sa ñëw bi lépp ñu ñaan la yàlla na ko yàlla nangu doom ngeen jàmm fekk jàmm di nuyu tim bu baax te Cheikh Mouhamad Lamine doomu suñu Serigne Thierno Alpha ca Ndar Thierno Alpha Bokar ca Ndar moom it ñëw na mu ngi ci jotaay bi jërëjëf yàlla yàlla fa yiw kon ñu jox Thierno Ousmane mu préciser kaddu rek jox xalifa bi mu yëkkati kaddu wa saara min alxulafai biza tariqi ahmadi قدومه في رومد حينئذ واجتمعوا وتحدثوا ووقفوا تقديمه في المسجد تيرنا ألف عثمان jangi jangani siftini julɓe tottiɓe laawol cheikhuna tidiani ceerno alpha ousmane ceerno ousmane mamadou aya mi ñaaginoma laawu degonata khalifa galle ko seen mi daro yeesama miɗa yiman ma alpha ousmane mi ñaagi nooma allahu dingunata khalifa galle ko sen mi daro yesama mina yiman ma alfa usman ceernam ceerno usman jangi jangani siftini julɓe tottiɓe lawol cheikhuna tijani ceerno usman min dimi jarat alfa usman dasgalaawul cheikhina tijaani moom wa fawwadu umuurahum wa bayyanu bayatuhum fi hijri zaka al abid sëñ bi teewaay bi mu fi teew ndax dafa dellusiwaat ci dëkk nag suñu maam Alpha Ousmane di ba nee na sànq wa cheikhuhu aataahu aataahu maa yaxfihi wa min xulafaa bi za tariqi sëriñam mooy ñëw ci moom Alpha Aliou Njëri bi dafee jaar ñu daje paal ndax jamono yu Alpha Ousmane mu ngi nekk côté waalo mu jox ko wérd juróomi nit la ko joxandoo woon waaye moom lañ defoon muqaddam ci seen kaw moo tax mu ni wa cheikhuhu aataahu aataahu euh, dikk na ci moom jox ko lu koy doy ci tariqa tijaaniya waaw waaw waaw may ko wallaahi waaw mu loolu moo tax bi mu bii Alpha Aliou Njëri bi di taseeg Alpha Ousmane mu jóge fa euh, dem war a Mahdiyu jóge Manga wala fi ñuy wax Kiiraay fekk fa Alpha Alpha Ceerno Alpha Ceerno Hamme ak Alpha Sadio ak jaañeen ya nekkoon ñoom ñëpp bi ñu ñëwee Ceerno Amadou Hamme jox ko doomam mu am ak moom njaboot 1862 Ceerno Ahmadou Hamme ba delloo àddina 1863 Cheikh Umar woote wallu xare Hamdallahi na Alpha Aliou Njëri dem bokk ci ñiy wallu woon mu des ca xare Hamdallahi 1864 Cheikh Umar disparaît Bandiagara kon nga xam ne te boo xoolee Kumba Eliman eh, kumba ilimantaal jigéen suñu maam ju baax ja alaji cheikh omarul futiyu taal moom lañ joxoon maam mahdiyu ci jamono suy ma nga xam te ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk seen mbokk si tàng bi sànq wax na ko nee na yëf yi cheikh omar a ko moom waaye nganug tey gi nee na cheikh omar moo ko moom ndax Cheikh Omar mooy Mam Mahdi Mam Mahdi moom mooy Cheikh Omar ndax li leen lénkale woon lu lu jiitu tariqa tijaani la woon leneen la won ba tariqa tijaani ya ñëw ñëw fekk leen fa ji muy lu baax ji lu sell Abdou Thierno Abdoul Karim Diallo jox leen ko ñoom ñëpp ñu wuy ñu wéy nag di ko doxal Thierno Abdoul Karim ni leen lii ma leen jox werde la waaye la ca des muy ay lijaasa ak sekkere tariqa tariqatu tijaaniya ñeneen ñoo koy joxe daal di leen di joxoñ am sëriñam ca dawaaliya ca Mauritania moom mooy maam Mawlud Fall bi ñu demee ci xissa boo xam ne xajul ci jotaay bi béréb bi xaju ci jotaay bu bu gàtt bi am lu mu leen def loo maam Mahdi andi loola maam Cheikh Omar andiwul loola mu mu ni leen loolu du dara ñàkk andi gi nga andiwul du sa télé du dara kii indi indil ma ko laaj man maay ab sëriñam man maa koy defalal ijaasa taqdim man maa koy jox secret bi mu war a yóbbu liggéeyi ko yow mii nag li tax mbir mi jafe ci yow sa yëf dafee nekkul mu ngi nekk ca madinatu munawwar cheikh mouhamadul xaali moom moo la ko war a jox lépp nag te it nag boo jóge fi fokkit daldi di wéy ca loola yoon wa yàgg na ba muy àgg foofu ardul hijaz ba mu fay àgg dafa taseeg ak jamonoy aj mu laaj waa madina ñun ko góor ga madinatul munawwara la nekk foofu la dëkk waaye jamono ji mu ngi fii ci Makka ndax dafa aj si ñu àndandoo mu àndandoog ñoom di dem comme ñoom ñëpp ay nitu yàlla lan ba ñuy daje sa ñu ngi daje sa bërëb sàngam yàlla moo leen woon béréb sàngam boobu foofu lañuy daje dajee ñu mu taraabi mu def ko xalifa moom it waaw na mu ni waxul day sant rekk mu ni Baye Assane Seck mii bi mu demee dëkkam di ko ndokkeel magam ja demoon Ceerno Amat Tijaani Sekk ci la ko wax ni bor bii danaa la ko fay yàlla naa dund ba ma fay la ko njaboot ñii fi ñëw ñoom ñëpp fekkee nañ jotaay boobu ñi mu àndal fekkee nañ ko Ceerno Abdourahim Sekk la woon kenn Abdourahim sekk la woon kenn Abdourahim Seck waaye ñi fi teew ñëpp yàlla may leen dund ba ñu fekkee bor bi sëñ bi doon faya Alpha Ousmane waaye du moom la ko doon fayantoon de <laughs> waaye diggante maam Amari Ndaak Seck ak maam Alpha Ousmane la la ca des sëñ bi guddi na sa maam a ngi nii tëdd fee dengoon nga deng fa egg dengoon waxoon nga wutim deng fa egg boo jóge fii nga jaar fa ziyaare ko ñaanal ko yàlla njëggal ak yërmande ak njee njabootam gam fa àndal ak seet yam fa àndal ak ña fa nekkul te teewuñu fa te ñu rob leen ci biir suuf ci sa barke maam la ci topp guddi na mu ni ñoo defar reer sa xaru reer ngi fii jaa jaa bi nga àndaloon nag na moytu bu mu ni bopp bi moo ko moom mu ni kii nag mu ni lii nag du ko jox kenn mu la koy jox moom moo la koy joxal boppam ni lii barki dem lañ ko ko yónnee kowet du bay nga koy njëkk di ko jaar ci kaw taalibe kër gi moom moo ko ko yónnee daf koy barkeeloo ci kër gi ci la am bi mu ñëw ak léegi motul ñetti fan mu xam ne na kon yaa ko moom xar mi du du xar lañ la yéene woon nag lañ yéene woon ñu yore organisation bi jaawale nag rey rey ba reyaale li nga xam ne moom lañ la fi looñ ci teraanga te da da leen ciy sant moo leen ko santoon da leen waxoon ni kii ñëw bu fi gàtt des bu fi nag des bu leen ñëw na ngeen ni ko manqué na na ngeen ñëw rek ñu maanaam na ngeen mel na ñuy yàq ngaan gi mu ni defar na ni diggante bi kon reer xar moom mot na reer waaye gaa yi moom la des moom def nañ ko yeneen kamil bii ngeen di seen kaamil bii itam waaye sëriñ bi nee na sëriñ bi na ki maam Cerno Bachir waaye li ci naqari mooy ni mu yiwee nag. ba pare sant saw. ba pare daal di sant saw. moo ma loolu daal moo ma naqari ci affaire yi. sëriñ bi nee na. sëriñ ko ko joxal Cerno Cerno na ko ko joxal Cerno Ousmane. Baye Alpha Ba. lii sa teraanga ko koy jox mooy ki fi représenté njabootug maam Cheikh Omarul Fuuti ca sant saw waaye ak ki représenté njabootug Seydina Limaamul Mahdi yu di Serigne Alpha Ba na nag bagaas yi Baye Malick Gueye sëriñ bi nee na teraanga ji teg na ko ci sa loxo nga joxal ko ko Baye Thierno Ousmane boo ñëwee ci ab sërif dañuy ndékkee warga ñoom ci suba si. loola ñëpp loola moom ñëpp a ko xam. ñi sant saw xam nañ ko ñi sant saw xam nañ ko. ñi sant leneen xam nañ ko sant leneen it xam nañ ko. nee nga joxal ko ko sëriñ bi nee na nga joxal ko ko sëriñ bi. Baye Malick mu ne Baye Assane la ko jox ci sutura ci teraanga di wax la yàlla waxoon yéen ñaar loolu ngeen doxal. wa awfu bil ahdi inna al-ahda kaana mas'uulan yéen li ngeen ne ci ngeen ne yal na jëleen ci yàlla yàggal yal na ñu ànd ak yéen nag barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ mbay jaay sëriñ mbay jaay anam sëriñ alfa joxe la lii sëriñ mbay jaay moom la sëriñ bi waxoon ni nañ ko jox lii mu joxal ko ko Thierno Ousmane tabaarakallaahu ñu tabaarakallaahu amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin اللهم صل على العالمين تخريعا وصفه فصرنا نحب الموت تليخا بكربه فيا ليتنا متنا كراما بحبه يسير علينا الموت في جنب حبه ومن حسد المحبوب فلم يسأل البخيعات man ya daan geeroo daxaw nufuusakum min baadi ma lahum xifdan li diinihim te xam ni mooy geeroo maa kaana xarbuhum jalban li rizqihim wala li jaa ilaahihimu ndekon dafay feeroo samaam qaamu li rabbihimu xubban li fawzihimu duniyan wa diinihimu te loolu moo ceeroo usal alin gey neena samaam naalu li azmihimu maa kaana qasdahumu yawmal xiyaamati muy mujaawar ak nuuru xad allamu wa rabbu waahan li juhdihimu aataw li xayri xafidin ngeen ji muftaxaru yaa xaw mi waa Canaba haada turaasukum siiru ala hadyihi te moytu agreero fal tu'minu وعملوا الخيرات واجتهدوا بكسب ما أحل الرحمن دون غورو أستاذ علي نينا فراح منها ilaa jaayaan li yaskunwaa te it foofa xayra maxduurin ci ak daaru ñu ni ko kañ mu ni min baadi mastaxraqa al awaama fii gazawaati diini bàyyi na boobee kër ga kajooro fa man na rabbal wara alayhi qaryatahu hiya al musammaatu janballahi ngir wóoro mbokk yi Baye Seexu ci Baye Serigne Assane Seck mi ngi leen di nuyu yéen ñépp maa ngi ziyaar nag xalifa bi tiijaan bii ñu bokk waaye Cerno Ousmane bi ma la pas-pas ak ngëm gi ma fekk ci yow daa rëy man looloo ma bett nit ku am pas-pas nga waaye nit ku amul ngëm nga ku wóolu yàlla nga wax bi yàlla duma ci topp dara ndax dëgg la jërëjëf Thierno bis bi li muy rëy rëy lépp bor la de bu may fay keroog bi nga ñëwee cene ba man keroog laa la njëkk a gis li yàlla may maam Ahmadou Ndaak Seck ci tariixa bi nga nangu ko ba wax ma ci histoire lu ma ci xamul woon man te ku gëstu histoire la sëriñ looloo ma bett waaye maa ngi lay wax ni bu soobee yàlla Rumde dina séqi jéego dina dox te sa loxo Cerno Ousmane sëriñ bi nee na yow dinga am ndam man nag duma wax njortu de déedéet lu ma xam laa lay wax 1961 ci laa commencé liggéey turu yàlla ci kurus ba biig ci guddi liggéey naa turu yàlla guddi gu ma ko fande ndax wére su ma xëyee ci yor yor bi dinaa ko fay man du ma wax njort yaqin lay wax billaahi ci yaqin rek laay wax te it du ma wax nag lu ma gëmul dama laa naw cerno yow li ma la nawee bi ma gëstoo histoire ni nga taxawoo sa maqaamam maam ni nga ci defee pas-pas ni nga ci defe yitte ba jamono jëlul maqaamam kër gi di ko dolli ko di ko dolli billaahi man lii a tax ma naw la dangaa sàmm sa maqaamam maam danga koo sàmm danga koo bàyyi xel danga koo dund day dëgg te day dëgg ci yow yow da ngaa sàmm maqaamam góor gi da nga bàyyi xel nga boole ca nag dugg ak doomu soxna dugg doomu soxna yépp kenn ku ne la ko war ci yow def nga ko yow ba mu mat ku la deeti war lalay lay fay si de waaye yow fi nga war a teg sa tànk ci diine ci diine war ko fee teg war ko fee teg ci tariixa bi war ko fa war ko faa teg ci mbokk gi yow moom teg nga foofa sa tànk yow zéro faute Thierno Ousmane zéro faute zéro faute fi yàgg yàlla boo fi gaaw a. yàlla fi gaaw a jub wax leen amin. wàlliyu wàlliyu. soo ko neelee. soo ko waxalee lu amul. lu amul lu amul. du la jig yow mi ko wax du la jig de. na neex na neex. na naqari. Cheikh Omar. sama maam maam Cheikh Omar. seeti Seydina Limaamul Mahdiyu. am lu ma ko déey da ko ni da ko ni man man ndawul yàlla ndawul yàlla yàlla yónnee na ndaw ci yàlla yónnee na ndaw ci man ne ma naataal jihaat ne ma naataal jihaat mu ne ko ndax yàgg na mu ne ko déedéet gént gi yàggul de mu ne ko man de jot naa ndigalul yàlla. ci ni sama doom. ci ni sama doom man. Cheikhou Amadou muy maam Cheikhou Amadou. réew mi réew mi. aw sasam la. ci jihaat ki la woowee maam Seexu ba maam Ahmadou Ndak Seck radiyallahu anhu ñu ànd xeex kokki xeex kokki rooso rooso jéyeen jéyeen buli jama coowaan masar masar mbilóor benn buntu benn buntu gàmmaaji daqaar seexu daqaar seexu samba sadio samba sadio gede gede nenet nenet pete pete añam tongel kër amadou yàlla kër amadou yàlla gii la jur juddoo gii la kenn dal lu rëy la kenn dal lu rëy la ba jaaraama jaaraama maam Cheikhou ba jaaraama bu mujj duma ko mën a lim ndax indiwuma këyit woon waaye ba muy wax ba mu ne ba mu biraa ngay faakan la ne leen suba suba la péncum yàlla ci guddi mu yeewi ñëpp mu yeewi ñëpp ñu def menn mëdd mu ni leen mu ni leen ëllëg ëllëg ku bëgg a dekkee illi yii na ku bëgg a dekkee ji illi yii na xaaral jant bi fenk suba Baay Malick mu ne dani Seex Canaba mu ne maam Ahmadou Ndak Seck Ibrahima Gaye yéen ak daay lu mu tàkk-tàkk bàyyi fa ab ruq mu ne ko biraa ngay faakan maar ruu weex ya ëllëg te soowu ba te penku ba yaa koy leeral maa amari ndaak seet ruuyu ñuul yi ëllëg ca soow ba yaa koy weexal kon yéen ñaar moom du ngeen ci faatu moo tax sàmba Sadio bi mu mu yeewi leen ne leen daay lu mu tàkk-tàkk bàyyi gox bi lii amee maam Seexu Amadou xeex xeex bi bi ñuy taal Samba Sadio. dafa ne dafa ne taalibe yi. man man. sama sooñu tubay. sama sooñu tubay. nasaraan du ko nasaraan sax du ko gis. bi ñuy taal bal yi ci Samba. bi ñuy taal bal yi ci Samba Sadio. sama baay Cheikh Ahmadou Bamba. sama baay Cheikh Ahmadou bàmba ma nga yendu ngaanaado. ma nga yendu ngaanaado. ànd ak baay Paate Ka. ànd ak góor gu ñuy wax baay Paate Ka. pël bu dëkk coobe. pël bu dëkk ca coobe. ci taal bal bi ñuy taal bal yi. diggante xaymaam ba. diggante xaymaam bi. moom sama baay Cheikh Bamba. ak daqaar gu ak daqaar gu mag ga. yaram wa tàng na yaram wa tàng na. mu ŋàbb kurusam kurusam. di jéggalul di jéggalul. njabootug yonti yàlla njabootug yonti yàlla Muhammad. ba yaram wa tàng jër ba yaram bi tàng jër. mu ñaq tooy mu ñaq tooy xib. di dox ci aw naaj di dox ci aw naaj. di ko jaabante. xawma benn xare. xawma benn xare. bu mu échappé. bu mu échappé. fekkiwu ko fekkiwu ko. ci seexu Amadou ci maam seexu Amadou. yéen gone yi. yéen gone yi. maa ngi leen di ñaan. maa ngi leen di ñaan. seen maqaamam maam mii. maam mii ci gàlle koset. garde leen ko. garde leen ko. te gar leen ci seen bakkan yéen waa Rumde. yéen xale yi. garde leen seen maqaamam maam fii bu leen ko wér ci kenn de téyel leen ko seen bopp garde leen seen maqaamam maam ab dëkk su wasifa dox su wasifa wa di dox ca jàkka ja jàngu bay tàkk ji mooy jàngu ba di tàkk sax ca dàkk sax ca dàkk du ñu wan su mukk dëkk booba moom du ñu wan su mukk wan su mooy dëkk ba du dellu ginnaaw sëriñ bi mu ni dama ànd ak Cerno Abdourahmane Bari bu boggal ñuy dox ci Casamance ñuy dox ci Casamance ba yàgg mu ni ba yàgg mu ni ma sëñ Asan ma ne ko han mu ne ma dëkk bii mu ne ma dëkk bii ñu romb de moo mag ci Casamance waaye dëkk bi moom amut barke amul daaray nee na ma ni ko gees ne ko Thierno Abdourahmane xanaa dëkk bi amul daaray alquran mu ne ma wallaahi wax nga dëgg amu ko de amu ko de ma ne ko ñoom ñoo rey dëkk bi waaye mag ñi waaye biñ fi nekkee biñ fi nekkee ñi leen wër ñi leen wër di équipe bi wër nit wàllu yi di équipe yi nga xam ni ñoo daan wër nit yàlla yi di wàllu yi kenn ku ci ne kenn ku ca ne da ngay fexe da ngay fexe ba mokkal say ba mokkal say fiiw mokkal mokkal muro nii. ak ya ca ak ya ca ànd. bu ñu demee ba yàgg. bu ñu demee ba yàgg. ñu ne ah. ñu ne ah. àll bii de. àll bii de. gaynde ak gaynde. mi ngi ci biir mi ngi ci biir àll bi de. di lekk jur mi ngi lekk jur gi de. wala tene. wala tene ngi ciy lekk jur gi de. mbaa segg ba segg ngi ci de. xam nga nu ñuy def xam nga ndax ñu mag ñay def. mag ñi dañuy bàyyi ba dem ca jàkk ja ba wasifa ba àggal. foofee foofee. la ñuy jëlee dog ya la ñuy jëlee dog ya ñu yor. toroxal ko jàng ko rek toroxal rab wa mu teg dañuy jekki-jekki rek rab wa génn dëkk ba moom mbaa mu daanu ci lu ko rey mbaa mu xabtalu ba daanu ci lu ko rey boo dee liggéey turu yàlla boo dee liggéey turu yàlla ba yàgg ba yàgg nga jël sa kurus nga jël sa kurus wëndeel ko wëndeel ko wékk ko ca niim gële wékk ko ca niim gële ba mu lonku ba mu lonku nga dër nga dër su dikkul bu dikkul ci sa pas-pas ci sa pas-pas la de doomi soxna. doomi soxna. su solee dàllam. bu solee dàllam. di wuti dara. di wuti dara. dugg réew mi dugg réew mi. da koo fàtte ca der da koo fàtte ca der ba la muy wuti. fàtte na ko ca der ba mu war a toog. moo ne fi ne boo duggee réew mi. fi mu ne nii de boo duggee réew mi. siixa. siixa. bu turu yàlla. bu turu yàlla. boo ci gis. boo ci gis. muy aqiiqa. muy haqiiqa. da fekk ca suuf. da nga fekk ca suuf. turu Cheikh Omarul Fouti. turu maam Cheikh Omarul Fouti. di nga ko ca fekk moom Cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu tarbiyewu ñeen fukki sëriñ ak ak benn ñeen fukki sëriñ ya fukki sëriñ ak benn am na ca benn am na ca benn boo xam ni mustadal ba mustadal ba jàngul jàngul sëriñ ba jàngul waaye ko ñu defar waaye day kon defar turu yàlla nag turu nag du arul du arut du bayaan du bayaan du mantik du usul du usul de dictation dong dictation la rek képp la ca des sa pas-pas moo koy mottali sa pas-pas moo koy mottali waaye tàmbali ab dog tëral ko jël ko bu subaa nga jëlaat ko boo ko toggee du ñor mukk moom da nga cay ne te bañ a découragé wu maam Seexu amadu nag moom dañoo dem ba yàgg muy kalu réew mi baaxul de. maanaam bi ñuy laata gimmi. maanaam bi ñuy laata gimmi. nun nun fekk na. fekk na wali yu fi nekk yëpp wàllu yu yi fi nekk yëpp. tubaab yi rey nañ tubaab yi rey nañ leen. bañ jeex tàkk bañ jeex tàkk. Cerno car Yaaya. Cerno Alpha Yaaya. dañ ko génne. dañ koo génne. yóbbu ko Prochène. yóbbu ko Prochène. teg ko ca désert ba teg ko ca désert ba. mu defa nekk. mu defa ne. ba faatoo fa. ñu rob ko fa ñu rob ko fa. bi Seexu Seexu. bi maam Cheikhou Amadou. déedéet des na Cheikhou Touré. bi Cheikhou Touré. bi mu amee yetti at. bi mu amee ñetti at. ñeenti at ci pouvoir ci pouvoir. la jël avion. ci la jël avion. dem desuuse ko. dem ko. yóbbu ko Guinée yóbbu ko Guinée. rob ko fa. almaami Samori Touré almaami Samori foofa la des. Cerno Abdou Ndiaye. Cerno Abdou Ndiaye. ca Mali ca Mali. dañ koo rey. Ahmed Lamine Dramé ca Sukutu. Ahmed dañ koo rey. Sërif Cheikh Amala. Sërif Cheikh Amala. yónni nañu Seydi Nourou Tall yaar yoon. yoon yónni nañu Seydi Nourou Tall ñaari yoon. par hélicoptère. par hélicoptère. mu fekki ko kaay. mu fekki ko kaay. mu dër fi mu tax mu dër fi mu taxaw rek. gantu gantu. ne du bàyyi. ne du ma bàyyi. diine ji diine ji. nasaraan nasaraan. lu ko neex lu ko neex def ko ci diine ji. gouverneur général ni gouverneur général ni nañu ko jël nañ ko jël yóbbu ko France yóbbu ko France loger ko Munis loger ko Munis Munis nag Munis nag moo gën a xóot ci moo gën a xóot ci France moo ci gën a sedd moo ci gën a sedd su ko defee su ko defee sedd ba dina ko sedd ba dina ko liquité ko yóbbu ko ñu yóbbu ko jël dakaar yóbbu dakaar mu dugg bato mu dugg bato maqaama mi maqaama mi may ko may ko bato bi bato bi mënta tàkk mënta tàkk biñ ko ci tegee mu ni leen mu ni leen su ngeen ma mayee su ngeen ma mayee ma wàcc ci ma wàcc ci suuf julli ñaari rakka julli ñaari rakka bato bi dina départ bu ngeen ma ci tegaatee rek mu dem gaa yi nangu mu julli ñaari rakka dugg nangu dogalub nangu dogalub yàlla bi wàcc ci moom bato ba bato ba yóbbu ko muniis yóbbu ko muniis ko fa juróom benn weer amu fa juróom benn weer fa ñu ko rob fa ñu ko rob saraxule yi saraxule yi jënd nañu ko jënd nañu ko ci milliards ci ay milliards ba miire ko ba miire ko defar bàmmeel ba defar bàmmeel ba di ko ziyaar sama baay Cheikh Ahmadou Bamba sama baay Cheikh Ahmadou Bamba résidence surveillée résidence surveillée sept musoo ko ñibbisi musoo ko ñibbisi waaye wàlliyu waaye wàlliyu yàgg na cim nattu yàgg na cim nattu de sans ah, maam Cheikh Omar. sans maam maam Cheikh Omar. ko mujjee gisee Bandiagara. ña nga ko mujjee gisee maam Cheikh Amadou. ña ko mujjee gisee. sàmba nga ko mujjee woon dani woon. man Amadou man seexu amadu sama sooñu sama sooñu tubay. nasaraan du ko gis. bi bal yi tàkk bi bal yi tàkkee. mi ngi ànd ak jaamam bu ñuy wax Paris. mi ngi ànd ak benn jaamam bu ñuy wax pari sox ya tàkk sox yi tàkk. miir mi jàpp Paris. miir mi jàpp Paris. mu ne ko pari mu ne ko Paris. accu puccoo. accu puccoo. bàyyil fas wi. bàyyil fas wi. mu deg rek. mu deg rek téye fas wi. ngëb rek. mu jël kurusam. mu jël kurusam. lonk ko ci ñaari baaraam ko ci ñaari baaraamam moom maam Seexu Amadou. ca noppi fas wa. ca noppi fas wa. wàcc kurus gi mu ne. daal di kurus gi mu wadd ci suuf. mu ne ko Paris. mu ne ko Paris. mu ne ah mu ne ko ah. jox ma su mu ne ko jottali ma sama kurus gi. bari sëgg bari sëgg mu ni mes bàyyi laa fas wi sëgg doon jël kurus gi maam Seexu Amadu ne mes bari nee na bari man mi nga bon fas wi man mi nga bon ci laa fas wi xaw ma fu mu jëm xaw ma fu mu jëm ku wax fen keneen ku ca waxaat la ngay wax amul pari mboomee pari moomee bàmmee la ma ngi bàmmee la ma ngumba ñu sànge ko drapeau ñu sànge ko drapeau ba képp kuy liggéey ci diine képp kuy liggéey ci diine te bokk ci te bokk ci. seexu Amadou maam seexu Amadou. ameel nga ko ameel nga ko. addiya addiya. ziar ameel nga ko ziar. ameel nga ko ñaan. Cerno jaaraam jaaraam yal na yàlla fay la jazakallahu xayran man nag ñëw naa waaye wutuma xaalis de wutuma ay taalibe fekk naa fi wasiila man wëllëre moo ma indi ak liggéeyal mag ñi damaa ñëw siyaar si la damaa ñëw sant si la damaa ñëw ñaanal si la damaa ñëw ziyaar si sama maam jiñ bokk boole naa ci nag xalifa général juróom benn la boo demee ci constitution ba waaye maa ca mujj xalifa général nag ci état la bokk ñoom ca état lañ ko dugal jabootug Seydina Cheikhu Amadou di man mii di yow mii di ngay amagul statut amaguñu statut statut amagu ko de statu boobu dama bëgg ñun ñëpp ñu àndandoon nag mu taxaw statut boobu foo toll ci àdduna état dina xam ni ñee yaa nga fee bu dee ngay xalifa bi bàyyi saa fu mu yem bi état dina xam ni ma nga fee. lay sa àq ci réew mi lay sa ci réew mi. doo ko laaj doo ko laaj. doo ko jëli doo ko jëli. dañ la koy dañ la koy yut si. statut boobu man laa bëgg mu taxaw loolu laay dox. damaa bëgg ñetti kër yi. ñetti kër yi ñu nekk benn. su ko defee su mi maqaama mi. jéego bi jéego bi. dina gaaw day gaaw. waaye ma toog nga toog rum de. di taalibe doyloo ko ma toog cene ma toog cene ba di taalibe doyloo ko bàyyi saa toog ngay toog doyloo ko doyloo de doyul de su ko defee su ko defee bu nu àndee bu nu gëddëg wurama di loolu dañ koy def ngir jëmmal wural mahdi loolu la loolu la sëriñ bi wax wural sëriñ bi mi ngi xalaat tamit vraiment di am kërug mag mi ngi koy xalaat nee bàyyam moo tabaxoon jumaa ja téeméeri dërëmi ngor booba nag boo ko évaluer ci jamono bi mat na ñetti téeméeri million jamono bi CFA bàmmeelub maam góor gu mag tabax naa ko ren trente deux millions àgg na bàmmeel waaye décoration bi ci naar yi sëriñ bi mu ne naar yi dañoo ñëw laaj ko ci quarante millions ñuy puusante te tubaab bu dikkoon barki démb ay italien waaw sëriñ bi mu ne italien ñëw nañ ba natt ko ba àggal waaye dama bëgg ñu laaj ma lu manque quarante waaye dama bëgg ñu laaj ma lu manque quarante millions tubaab yooyu nag bu dul ay jullit danañ tuub de ñoom xabru booba bi ma koy defar xabru wàlli yu yépp dama leen a wër bëgguma ci benn nuroog moom dama bëgg bu ma ko defaree ba pare ubbiku njëkk gi yow Thierno Ousmane la bëgg bu boobaa nga ñëw ubbiku ubbiku njëkk gi moom yow laa ko jagleel sa yi nee nañ sa yi ci kaw nee nañ dañ laa yërëm nee nañ waaye ñaan damaa xool benn portable sëriñ bi mu ne damaa xool benn portable fekk ca lu ma naqari wax ba sëñ sàmbay bu Louga sàmbay bu Louga moo ko wax ma xool ma xool ko kenn nittaliwu ma mu ni mu ni xeex Samba Sadio ña doon xeex Samba Sadio amuñu ndam amuñu ndam wax bi daa rëy de nit ku baax. day moyu am nawle. day maytu am nawle. te nit. te nit. dañu koy moyu. dañ koy maytu. ci ngëmam ci ngëmam. waaye dafa dafa yërul histoire. waaye dafa yërul histoire. gis nga bi ñuy xeex Samba Sadio. gis nga bi ñuy xeex Samba Sadio. Baye Babacar Koulou Mbaye. bàyyi Babacar Kóolu Mbay mi jur Ahmad Saxiir Mbay mi jur maam Ahmad Saxiir Mbay moo moo nekk ci ndijooru Seexu moo nekkoon ci ndijooru maam Seexu Amadou yor téere yi yoral ko téere yi di bind ijaasa yi di bind ijaasa yi di jox di joxe yërul histoire yërul histoire Baye Gumba Sall Baye Gumba Sall mi nekkoon ci càmmoñu Seexu mi nekkoon ci càmmoñu maam Seexu Amadou Baye Gumba Sall. Baye Gumba Sall mooy woy juru Serigne Abbas Sall. baayam moo jur Baye Mayor. Baye ma waaw loolu laa bëggoon a wax. Baye Gumba Sall. Baye nekkoon ci càmmoñu Cheikh mi nekkoon ci càmmoñu maam Cheikh Amadou. di diriger mbooloo di diriger mbooloo mi. moo jur moo jur. Baye Mayoro Sall. Baye Mayoro Sall ca Ngig. ca Ngig. foofa li mooy. foofa li ma fa bëgg wax mooy. foo dégg ci réew mi. foo dégg ci réew mi. barke barke sax fa. wala wala sax wala wilaaya gu sax. loxoy Seexu Amadou loxoy loolu rek laa bëgg wax. tabaarakallaahu ñaanal. sëriñ bi nee nañ ñaan mu ziyaare ji way juram wii. balaa xabru ba lëndëm. jërëjëf yàlla na nga àgg niw yoon sa ci liggéey bi ci diine ji yàlla na yàlla may la nga àggale ko waa ñu ni nag lépp lu waay bëgg nang nga ko yéene ci sa xol ñu may caméraman yi ñu may caméraman yi tàllal leen